laaj ay questions yu bëri te bëgg naa question yëpp ñu waxtaan ci ak yow nu mu gën a yaatoo bi ci jëkk euh, da nga porter plainte Ousmane Sonko parce que da nga jàpp ne euh, daf la waxal loo xamante ne ni amul nga porte ko plainte ñu bëri nag jàpp nañu ni loolu laataa Ousmane Sonko ki nga waroon porter plainte dëgg mooy forom Forum Civil di Birahim Seck ndax moom la mu wax Ousmane Sonko wax nga ne ko fi ñukk plainte ko nga plainte Ousmane Sonko mën na nañu xam lan moo tax plainte Birahim sekk mi nga xam ne wax na ci wàllu euh, affaire Prodac bi nga xam ne ba tey coow laa ngi ci riir ci Sénégal. waaw jërëjëf Baba euh, ni nga laajee question bi bu dee man dama koy reformuler pour lépp bëgg mu mu leer rek mu gën a leer euh, Birahim Seck amul fenn. ci livre am fu mu waxee li Ousmane ko wax après dinañ ñëw ci loolu Birahim Seck livre am amul ci fenn fenn fenn fu mu waxee ni que Mame rapport daf ko épinglé Birahim Seck ci livre moo tax baax na nit ñi di xool dafa critiquer le projet daal ni waaw waroon nañ aménager lii liñ ko amenager dafa cher waroon nañ jënd tracteur bi waroon nañ def lii waroon nañ def lii waroon nañ def lii mais amul kenn ku mën a jël ci livre Birahim Seck fu mu bind ni que Mame Mbaye rapport dañu audité rapport épinglé ko Ousmane Sonko dafa toog ni rapport IGE daf ma épinglé moom yor na ko génne liir ko kon dañuy d'accord ni que ñoom ñaar waxi bokkul bon kii critiquer projet wax dëgg yàlla man maa waroon a mujj ci di porter plainte Birahim Seck parce que man projet bi géré wu ma ko ñu ci baari dañuy wax parce que dañoo jàppoon ni que man damaa nekkoon coordonnateur domaine agricole yi musumaa nekk coordonnateur domaine agricole yi domaine agricole yi dañ fa projet la bu président de la république nommé nit par décret ni ko yaa koy téye ñu toftal ko ci ministère bi ma yoroon ministère de la jeunesse parce que moo yoroon ndaw ñi ca projet boobu liggéeyu ndaw ñi moo ko taxoon a jóg comme ni ñu toftalee euh, COUD ci enseignement supérieur comme ni ñu toftalee euh, Sénélec ci ministère de l'énergie comme ni ñu toftale SONES ci ministère de l'hydraulique comme ni ñu toftale Ageroute ci ministère de l'équipement comme ni ñu toftale AIBD ci ministère des transports aériens comme ni ñu toftale ANAM ci ministère de la pêche comme ni ñu toftale leneen ak leneen donc man ministère bi laa yoroon yor politique bi mais gestion bi nañuy doxale projet bi dañoo nommé woon nit ka fa njëkk a toog Jean Pierre Senghor la tudd ka fa topp ka topp ci Jean Pierre Senghor mi ngi tudd euh, Mamina Dafe keneen ka topp ca Mamina Dafe mi ngi mooy actuel ministre de la jeunesse Pape Malick tey jii nii keneen a fa nekk mais man musuma téye projet bi moo tax jaxase bi nit ñi bëgg a dañ koy def rek pour tooñ wala dañ koy def pour tooñ waaw wala pour jéem a indi firnde ci ñoom ci li ñu wax mais man musuma ko gérer. kon kon jàpp ne yow li ñu ci tudd nii tooñ la mais waruñu la ci tudd am na ñeneen ñu ci war a tudd. xam nga baaba. xëy na buñ demee ba ci kanamu wax ji dinaa la ko wax euh, wax ji dina egg foo xam ni yeneen di ak yeneen leeraange dina ci génn. mais tooñ mënta fu weesu tey di jëbub fii télé bi dafa am direction programme am direction technique. am direction communique euh, euh, relation ak. relation publique communication. marketing commercial. voilà mhm. tey ki yor direction programme bi ak ki nekk directeur général télé bi tey bu amee problème ci programme bi kan la ñuy woo. directeur général directeur programme bi la ñuy njëkk a woo. waaw waaw mais bokk ci responsabilité wu directeur général. merci beaucoup lu tax Sénélec bu amee problème. kenn du wax ministre ba la. DG ba la ñuy wax. DG ba la ñuy wax lu tax kudd bu amee problème kenn du wax ministre de l' nationale la. lu tax anam bu amee problème kenn du wax ministre de la pêche la lu tax euh, euh, kuréel yi nga mën a jël yëpp. lu tax bu amee problème du ñu wax ni que ministre ba la mais dañ naan directeur ba la parce que directeur ba mooy gestionnaire bi mooy administrateur de crédit bi. mooy ordinateur de dépense yi léegi man man en tant que ministre de tutelle géré li ci gën a metti mooy ay nit yu jàng nit yoo xam ni dañoo war a xam amul benn journaliste bu mas a jéem a laajte yow mas nga jéem a wax ci Prodac woo ma wala yow nga woo ma woo da ngay xëy rek dem dugg jël lu kenn wax lu kenn wax tey ku doon saytu Prodac doo woo li ma ci gën a metti mooy ay nit ñi ñu ñuy déglu ay nit yoo xam ne jàpp nañ ni que seen xam-xam egg na fenn ñooy wax yenn wax yi barki dem dama toog ba ci yàgg ma dégg kenn ku ni wuy tôt ou tard Mame Mbaye Niang rendra compte sur les vingt neuf milliards te kooku doon koo xam ni ku ñuy déglu la ci réew mi mais nan ngay rendre compte ci lu ñu la dénku nan ngay commettre faute de gestion ci loo géré wu donc foofu la wax ji egg mooy c'est-à-dire ñi war a saytu pour wax saytootuñu dañuy dégg rek di wax journaliste balaa ngay wax ci dara da ngay vérifier da ngay vérifier Birahim sekk nan la mën a wax fukki xelam xal suba na dem wax ko bu fekkee daf ko wax ci lii en tout cas livre liir naa ko mm. amul fenn fu mu waxee ni que Mame Mbaye Niang a été épinglé par un rapport Ousmane Sonko dafa toog ci télé te baax na ñu fàttali wax ji wax ji commencé wul ci waxam foofu wax ji mi ngi commencé ci bi may jàll. assemblée nationale assemblée nationale. votu budget benn député toog yëkkati ay kayit daal ni monsieur le ministre fii du sa place sa place kaso bi la parce que rapport a ngi nii ñu jiiñ la ci vingt neuf milliards yoo luubal. kooku boo nee ma lu tax porté woo ko plainte dama naan la barab ba mu ko waxee député bu fa wax kenn mënu topp ci dara dafa am lu ñuy tudde immunité parlementaire dans l'assemblée député moom bu nekkee ci biir assemblée lu mu wax kenn mënu ko ci topp ba ma koy tontu bu la neexee nga demaat xool li ma tontu mooy dama ni ko waxuma fa sax di ko jéem a tontu naan ko rapport bi ak rapport bële dama ni ko booy jiiñ sa moroomu nit da koy jiiñ loo am firnde man Mame Mbaye amul benn rapport waxuma rapport IGE waxuma rapport OFNAC waxu dama ne ko amul benn waaw dama ne ko amul benn rapport boo mën a indi man bu ma tuumaal donc kooku dafa yabal député mu wax la mu wax doyu ko la doon ut amu ko moom mu gàddu xeex bi ñëw toog ci plateau ay journaliste wër ko mu ni Mame waxul dëgg journaliste RFI bi ma doon interviewé dama ne ko mais yow la fekk may wax ak yow nii rek preuve la ci ni ko moom diffamé na ma parce que nee na dégguma tubaab man ak yow def nañ interview 15 minutes tubaab la wax donc yow sa bopp rek li nga wax firnde la ni ko def ma diffamé mu ubbi téléphone am liir daan ni moom am na rapport IGE man IGE buñ ko fa yónnee woon ñaar fukki yoon muy audité Prodac duñ ma woo. kenn du la woo kenn du ma ki koy gérer la ñuy woo ki koy gérer la ñuy woo donte IGE mën na jàpp ministre waaye fi wax ji gënee bon ak fi mu gën a ñaawe donte moom sabab na ko ay fan wax député mu wax moom mu soog a wax mooy la moo lay wan ni lu mu préparé la moom bi muy wax am na wax boo xam ni moom kenn xaaru ko fa yow bub su mën ngaa def erreur boobu ma nangu ko mais moom duma ko ko baal. lu tax doog ko baal. moom duma ko ko baal parce que ENA la génne moom duma ko ko baal parce que liggéey na ministère des finances fukki at ak juróom moom duma ko ko baal parce que xam na lan mooy ordonnateur de dépense lan mooy administrateur de crédit moom duma ko ko baal parce que bokk na fu mu liggéeyee ak IGF fukki at ak juróom xam na lu IGF mën ak lu IGF mënul IGF mënta jàpp ministre. IGF buy audité IGF mooy inspection générale des finance service la biir ministère des finances buy jàppale ministère des finances pour muy saytu kuréel yi muy dugal xaalis parce que moom moo yor seen kilifteef ci wàllu xaalis comme ni beneen ministre bi man ni ma amee IAF mhm. buy saytu kuréel yi ñu ma dénk ci wàllu euh, technique département secteur secteur ministériel ba waaye léegi ministre des finances nan la mën a amee kuréel boo xam ne day mën na jàpp moroomu ministre am ca moom moo yor kilifteefu xaalis bi hmm. loolu Ousmane Sonko bu ko xamul mënuma jàpp ne ko xamu ko parce que xam na ko nga weesu loolu dégg tur bi rek inspection générale des finance mooy day saytu kullu xaalis bi ñu dénkaane mais xaalis bi ñu dénkaani kayit bi nee na mi dénkuñu ko ministre bi directeur bu lañ ko dénk wala coordonnateur bi. mais yow moom Ousmane Sonko bu xamul loolu directeur bi yow amoo dara loo leen di commandé. loo xam ne war nañ ko mën a def en tant que ministre de tutelle. déedéet xam nga moo tax ma ne la ñiy wax yenn saa sax di nga jëlale ñu bari parce que bari na ci ay organes yu ma ci toppoon ñoom lañ lay wax mooy euh, non xaw ma woon. ne que nekkoo woon coordonnateur bi parce que naturellement projet bi bi mu amee man dama ko bëggoon dama gëmoon projet bi te ba léegi dama ko gëm donc politiquement je l'avais porté dama ci daan wax à tel point que dama daan suul directeur bi parce que dama bëggoon mu fes parce que dama gëm ni que ay junni junni junni xale ca ki ma dénkoon projet bi amoon na yaakaar ci ni que mu embarqué alhamdulilah ba tey au moins tey plateau bi ma toog am na ku ni dem na kër Momar Sarr gis na mais dama koy nangu mais moom Ousmane Sonko mënuma ko ko baal parce que xam na ba mu koy wax yàq a tax mu def ko ba mu koy wax euh, taqal ma moo tax mu def ko moo tax xel xalaatul ñu naan ay baal kook baal ko parce que ki xam ca di wax bokkul ak ki xamul ca di wax ki xam ca di wax ñaare mën a nekk dafa sabab bañ a wax dëgg pour yàq deru moroomam beneen bi mooy muy wax ca xamul ca moom mënuñu ko boole ci ñuy wax ca xamuñu parce que même bu fekkee deful leneen ci àddunaam mais nangu nañ ñi ko ñun ñëpp ENA la génne loolu lañ fay jàng ministère des finances la doon liggéey loolu lañ fay liggéey te def na fa fukki at ak juróom. mais monsieur le ministre. dama bëggoon danañ ñëw ci côté boobu ci anam bu yaatu. Mhm. mais euh, dama am ñaari mbir est-ce que rapport. Mhm. am na wala amul muy benn. ci mu leer rek ci lu waaw xam nga dégg naa ci wax yu bari. Mhm. dégg naa ci sax kenn ku am na kenn ku ma gis mu naan non Mame Mbaye moom li tax mu porter plainte.